liberté chacun est libre xoolal da am propre perception mais dama la mën a wax lu leer mhm. il faut qu'on respecte nos institutions le conseil constitutionnel est là pour valider les candidatures maintenant nag xam nga la la mhm. faisons confiance à nos institutions faisons confiance à nos hommes politiques faisons confiance aussi aux futurs candidats tey ku fi nekk soo waree déposer sa candidature xam nga ndax war nga ko mën a déposer xamoo ndax war nga ko mën a déposer te jour ba nekk nga dem déposer ku ñuy rejetel fekkee tu ne rempli toutes les conditions requises dinañ valider sa donc gisuma lu fi indi ci lii c'est un faux débat sax limite moom laa mën a wax. léegi président Macky Sall Euh, sànq yaa ngi waxee ay exemple di cité est-ce que mën nañ ko boole ci loo dans la mesure où quelqu'un qui nous avait promis de faire cinq ans def ko mu def sept ans quelqu'un qui avait promis que du décret fal frère def na ko aujourd'hui on nous parle de troisième candidature dëgg la waxagul mais nee nga bu bu ne d'accord ànd nga ceeg moom maanaam nit ku mel noonu aussi est-ce que c'est pas un problème dans une démocratie. mais comme nous sommes dans un état de droit conseil concerné da déet mënut a nekk. ça l'arrange. da ngay dem no ça l'arrange ou pas loolu yow pour man Mamadou euh, tu n'es pas habilité à y répondre parce que xam nga lan la du moment où ko nit ki dafa nekk vraiment une une une un leader très responsable. Mm -hmm. un mu ne dama bëgg réduire son mandat de sept à cinq conseil constitutionnel ko d'accord am nga yéene boobu mais dangay ngay dem référendum ñu dem benn élection consultative. ba ñu demee si ponk yëpp si la nekkoon xam nga yéen da ngeen jàppoon moment bu ponk enfin l' dafa jàppoon moment bu ponk homosexualité et autres alors que y euh, plusieurs points yi nga xam ne moom lañ moom moo fa nekkoon. mais malheureusement points yooyu avec le temps gisuñu. non c'est parce que xam nga politique moo graaw rek. période points rek. Mm-hmm. jàpp si ba nga xam ne fàtte nañu lépp. ma la pour rappeler la dafa réduire son mandat de sept à cinq ans loolu dafa aw si yoon conseil constitutionnel validé ko ñu dem référendum oui bi emporté ko. maintenant tey kaay ma wax la su toogee son premier mandat son premier mandat son mandat de sept ans mu jeexal ko mu nekk son premier mandat de cinq ans si le conseil constitutionnel juge que le président Macky Sall est a à déposer sa candidature ñu war ko valider loolu xoolal je respecterai man cette institution. yéen a beneen bi laay wax oui ma xam nga lan mooy wax ji tamit nag kaay ma la sànq wax nga ko. te ce sont les urnes sànq da nga ma ko wax sànq. urnes yi ñooy def différence. oui ci ñu ko nangu depuis ñu non dañuy waxante dëgg rek depuis ba ñu nekkee 2012 à maintenant. Oui. nous avons toujours eu des élections très transparentes. le fichier loolu loolu xëy na yow <laughs> yow xëy na yow su la neexee nga buñ ko nga buñ ko bañ a gis mais le fichier électoral tey la gën a mën a tey la tey la ñàkk benn benn benn tey la gën a fiable tey la ñàkk benn ñi ngi ko doon waxee ñoom di ko di ko di ko ñaawlu di wax yenn yi tey fiabilité ce fichier xoolal foog naa ne tous les acteurs xoolal l'ont confirmé maintenant nag dama lay wax leen tamit Momadou tey suñu tollee ba sa cappaandaw ba président Macky Sall mooy décider te lu mu lu mu munti décider. man Fatoumata Niang ànd naa seeg moom.